di am ak jaaxle ci li nga xamante ni moom nga ñu indil muy procédure boo xam ni dafay dàq ay élection te boo jëlee article 67 noo constitution dafa wax ni assemblée nationale ak ñi nga xamante ni moom mooy conseil département ak mairie yi ci article 107 boobu la nekk ñun ñoo am sañ-sañu ay député représentant peuple dàq élection ñoo sa am sañ-sañu jàpp date décret président la République war ko signé te exposé motif bi nga xam moom nga ñu indil pour ni moom ngay sukkandiku pour rapport élection yi teguwul fenn ndax jamaa defe ni li tax ñu war a dàq élection benn war a nekk crise ñaar war a nekk guerre ñett war a nekk maanaam loo xamante ni inondation muy mbënn moo xamante ni tey comme ni ko mag Sall defoon ba tas Sénat lu mel noonu moo war a tax ñu dàq ay élection mais est bi da nga wax ni ci dialogue politique ci ngeen sukkandiku pour bëgg a dàq mais dialogue politique moomul réew mi moomul Sénégal te ñi fi nekkoon da leen far pour cinq ans seen mandat war a jeex ñeneen wala faru kon jamaa defe ni def ay deal politique. da ngeen di woote benn dialogue pour que maanaam yéen ngeen man see def seen affaire loolu yaakaar naa ni du maanaam jox respect peuple bi ndax askanu si boppam noo demoon woote ji jël seen i pour fal maanaam conseil département yi ak ñi nga xamante ni ñooy maire yi loolu bu amee mais il y a lan mooy ndey yéen munu leen a def délégation spéciale lu tax mënu leen ko def délégation spéciale bi mu ko defee. politique bi jeex ña fa nekk war a liggéey bu ko defee Sénégal yëpp man see yam mais tey mënu leen ëpp ay conseillers ay maires yi ci Sénégal ëpp ay président conseil département tey ngeen bëgg ñëw pour yokk seen mandat te liggéeyuñu askan wi te maire yu si bëree bëri tey bu ñu demoon élection suba dañuy daanu ndax seen askan jéppi nañ leen ndax seen doxalin seen doxalin ne ñu sàcc nañ xaalisu réew mi. ne ñu jax ya sàcc nañ suufu réew mi tey jii ñooñu dañu war a war a toog tey jii pour yokk seen mandat ba kañ au plus tard 2021 voilà 2021 au plus tard d' accord mais yéen xamoon ngeen ni tey jii may wax a yow élection yi maanaam dañu koy dàq ndax li tax rek preuve mooy sa projet loi bi la indil muy loi de finance bi ñu la wotee tey jii defuñu si maanaam élection yi xaalisu élection defuñu ko si yow nan lan moo tax mën a indi benn projet loi pour maanaam war a doxal sa ministère nga war a def élection yi ci maanaam projet nga war a defal maanaam projet loi bi ensemble sama war koo wote te woteeguñ ko ba pare xaalis bi nekkul maanaam ci bitse bi man jàpp naa ni loolu nekk na faay boo xamante ne nii bu ko gën a rëy amul ndax da ngeen a war da ngeen a wane ni yéen élection yi si boppam xamoon ngeen dañ koy dàq moo tax nangu leen ko def si bitse bi nga xamante ne mooy bitse 2020 bi loolu il faut que nga joxe euh, explication lu leer peuple pour ñu xam loolu ndax xamoon ngeen élection da nga koy dàq ndax bés bi ñoo la ko wateel tey mu toll si téeméeri milliards ak nangam te élection yi bokkuñ si kon xamoon ngeen nu koy dàq ndax projet de loi woteeguñ ko lu nu woteegul yéen ngeen dind ko ne bokk si ko am na ngeen wane ni député yi ngeen fi am te député toppe la député Macky Sall yi député yi nga xamante ne maanaam moom lu ngeen ni gong ñu ne gong lu ngeen ni da ñu ne ngayda kon jàpp naa ni loolu rek day wane que ni député yii moom yaakaar naa ne seen waaw la ñuy sukkandiku seen waaw la ñuy dox ndax kon su bi nga xamante ne tey indi ngeen ñu ko ñun duñu ko watee ndax deal politique la te deal politique du si ànd tey duñu si ànd rek ça vous remercie